tooy na tey ndax euh, liggéeyam bii nga xam ni moom la ñu bàyyee bu nu sañoon noo koy àndandoog moom saa su ne waaw bu nu sañoon moom day du jóg mukk ci sunu keppaar yi waaye nag sunu borom ay dogal te def li koy soob moom ba tax na ah ñuy jéem a barkeelu ci liggéeyam bi ñu jóge jaabel jaaroon fi doon ko siyaar bëgg dem tàmbali ci liggéey bi dem jaabel xool nag yi ndax wut nañ ko ba noppi euh, tàmbali nañ ko euh, pare guñu waaye am na lu ñëw moom lañu ñu bëgg a dem xool buñ fa jógee jàll ca jànnatul maxwaa ca péncam ca nam ko daan defee àndandoog bokki taalibe bi yaa ngeen jëf waaw ñu sant sëriñ taxa di ko ñaanal mu yàgg fi tëwér te nu koy sant ci ndigal lim ñu jox ngir nu indi sëriñ bi fii loolu day moom bu ñu yemoon ci loolu rek ndigal loolu mun jox ñu jëfe ko bu ñu yemoon ci loolu rek war nañ koo sant ba dee ba tax na ñu ngi koy santaat bu baax tey ñaan Serigne Touba defal ko xéwal mu yeggale lépp li mu naan barkeb Serigne Saliou di sant Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou mi nga xam ne mooy sunub Serigne waaw ñu ngi koy sant te di ko siyaar jërëjëf. ngir a xam